Marc Prado Euh, nañ leen daal di am ñi nga xam ne tey jii euh, ñoom ñoo nekk euh, président commission yi ñooñu daal deen a jox véhicule bi nga xam ne nag marque Mitsubishi la waaye journal bi yemul foofu dem na sax ba nuy xamal ni après oto yooyu noonu gin kii di président yëkkati na lu toll ci cent mille francs jox leen ko pour li nga xam ne nag moo di carburant bi lu wute loolu ak li nga xam ne nag moo di seen salaire waaye aussi lii di passeport diplomatique moom moo daanaka à chaque fois ñu ngi waxtaanee coowal passeport Fatick bi président euh, jëloon ab décret yaatal anam bi ñi nga xam ne tey jii euh, ñoom ñoo ko doon yor. Mm. gis nga ki nga xam ni moo nekkoon moo aji Mbergane génnoon di def li nga xam ne nag moo ay révélation mm. tey lu nu Les ko wax mooy euh, député yi sax am na ñenn si ñoom ñoo xam ne te nañu oto yu bees tax jagle leen ko. toftal mm. ci li nga xam ne nag moo 700000 pour carburant. oui. Euh, da ngay dem ba doo xam lu muy nduru parce que da ngay xëy euh, boo kaasee si euh, décret ba nga xam ne jëloon na ko ci ki nga xam ne moom mooy président bu cour suprême. Mhm. jóge ci loolu ñëw ci décision ba nga xam ne def na ko ci mbiru passeport diplomatique yi ñu ne deetewaay mu yëkkatiwaat ay oto ak i prime ne da koy may ay nit ci moment boo xam ne nii. élection am na ba pare. Mhm. Sénégalais yi def nañ seen choix ci nga xam ne moom lañu wóolu pour dénk ko réew mi le président de la mën a taxaw. jëlaat yeneen dogal yoo xamante ne nii ci moment boo xam ne yaa ngi waajal passation de service euh, sabotage kese nga ko mën a woowee. et je mm-hmm. pense que depuis keroog depuis ba ñuy wax mbirum euh, décret yam yëkkateeg yeneen ak yeneen yàgg nañ di wax ne mbir mi mbirum sabotage kese la mën a doon ndax tey jii euh, gis nañu acte boo xam ne am na moom président mu mu teg ko. ak mm-hmm. ñeneen ci ay jegeñaaleem yoo xam ne teg nañ acte yoo xam ne mën na indi difficulté ci régime bi war a ñëw en place. Mm-hmm. donc tey jii président boo xam ne fal nañ la. fal bi fal bi sax dañ laa fal ni mu gën a rafetee nga yor réew mi baax na wala baaxul c'est un autre débat mhm. mais demee ba nga xam ne sénégalais yi def nañ beneen choix nga war fee jóge franchement war nga épargner sa bopp si yenn actes yoo xam ne nii euh, comme ni ma koy waxee doyadiloo sa bopp nga si nga nga siy jëlee mhm. parce que tey yow dénk nañ la réew nga dem ba euh, daanaka lañ la sénégalais choisir nañu keneen dem nañu élection euh, mënatoo am beneen mandat mhm. choisir nañ ki nga xam ne moom moo war a jiite Sénégal ba ñu xam ki gagné ba desul lu dul passation de service am. Mhm. ngay profité di def affaire yu ñàkk fayda yoo xam ne nii jël jël defal ay nit yëkkati ay oto may nit. Mhm. c'est-à-dire geste yooyu lan nga si jublu. yëkkati yëkkati yëkkati ay prime jox ay nit lan nga si jublu lan. Mhm. ci loo xam ne nii boo xoolee ba xool mën na am lien ak li nga xam ne nii alalu askan wi lay doon. Uh-huh. donc je pense que vraiment am na acte yoo xamante ne nii euh, li Sénégalais doon yéene à chaque fois naan président yéene nañ ko mu sortir par la grande porte yeneen nañ ko euh, bu demee kat ñu am souvenir yu rafet ci moom malheureusement li ñu gis mooy euh, boo waxee benn bu rafet itam di nga wax yeneen fukk yu ñaaw et uh-huh. malheureusement benn souvenir la ñuy am ci moom surtout ces derniers instants yi nga xam ne moom la passé dans ce pays là. Uh-huh. mooy say jegeñaale. ñoom ñëpp ku si nekk bëgg nga boo boo nekkatul à la tête du pays ñu continuer di am privilège ñu amoon mhm. euh, nga dal di modifier suñu ay décret soo ko modifié woon ci loo xam ne sax xëy na njariñu askan wi la ñu ne ah moom de mu yéex na koo def waaye def na ko pour askan wi mhm. mais la nga def ñan nga ko defal mooy say jegeñaale mooy say ministre mooy sa ay euh, ñi nga ñi nga daan liggéeyandool fexe ba boo fi nekkatul ñoom ñu mun di continuer di bénéficier ci lu mel ni euh, ay passeport diplomatique mhm. à chaque fois actes yooyu ñu koy gis ci président c'est quelque chose boo xam ne euh, du luñ mën a rafetlu e malheureusement ëllëg loolu la ñuy fàttaliku ci moom mooy un président boo xam ne euh, déjà sa magistère lu si ëpp lu ñu mm-hmm. ay mauvais souvenirs la ñu am ci yow mais dernier act yi nga xam ne nii moom nga teg du de du doon ay mbir yoo xam ne yu ñu mën a rafetlu la mm-hmm. et yéene woon nañ ko mu teg acte yu rafet yoo xam ne sax dafa am loo xam ne élégance la quoi gagné nañ la nga toog tranquillement ba bisu passation jot nga dem sa yoon mais gagné nañ la ngay profité di def ay décret léegi décret ya nga def noonu yëpp après fan la mujjee mooy ki ñëw abrogé na ko décision yi nga jël jël ay oto yoo xam ne xamuñu foo ko jëlee may ko ay nit de ces choses yoo xam ne euh, kenn xamul kenn xamul lan la si jublu yëkkati ay prime gaawantu mel ni kuy njëkkante xaama profité ñetti fan yi ma fi dese wala ñeenti fan yi ma fi dese def li ma bëgg a def c' est des choses yoo xam ne wax dëgg fa yàlla c' est pas digne mhm. euh, kilifa goo xam ne jiite nga ne lu toll ni réew. mais est ce que tey jii amoo gis-gis nu gisuñu euh, maanaam intérêt bi nga xam ne mi ko siy am mooy jéem a créer benn zizanie entre ki nga xam ne nag moo di. Euh, président Diomaye ak assemblée nationale. c' ko possible na daanaka du jamono ji est ce que loolu aussi mënul dox si si parce que tey jii bu fekkee mbirum oto yi ak di passeport diplomatique bi. Mhm. xam nañ bu baax a baax kii di président Diomaye bu ñëwee daanaka ba moytuwul dina foqatiwaat lépp jagleel ko ñi nga xam tey ji Euh, ñoom ñoo yeloo li ni mel alors tey ji est-ce que loolu bu demee ba àgg foofu du créer benn problème entre li nga xam ne nag moo di euh, parlement bi ak kii di njiitum réew mi. oui euh, pour man benn problème mu mu bon cest à ko def loolu lañ ci jublu bien sûr parce que tey nga bàyyi ba mu dese la tuuti ci ay fan. nga fexe jël ay privilèges yoo xam ne yow fan nañ la 12 ans mosoo ko joxe nga joxe ko. Mhm. tey jii mën nañu wax ci lu jëm ci passeport diplomatique yi certains yi nga xam ne xëy na loolu seen intérêt la. Euh, dinañu noonu ak président Diomaye parce que juste seen intérêt bopp lañ leen xañ am na ay nit ñoo xamante ne tey euh, yàgg nañu di tukki Euh, ci passeport diplomatique alors que la ñuy dox seen soxlaay bopp la ñu fenn Sénégal doxaluñu fenn loo xamante ne nii intérêt Sénégal la. Uh-huh. Euh, tey jii ñooñu boo leen xañee passeport diplomatique mën nañu ne bon léegi ñoom dañuy noonu président Diomaye. Uh-huh. mais li am solo ba am solo mooy lépp looy def rek ak loo ci mën a jëlee mu doon loo xam ne dëgg la. et que uh-huh. sénégalais yi nga xam ne peut-être euh, affaire intérêt wu Sénégal moom moo leen tax a jóg bu ñu ko déggee xam ne lii intérêt Sénégal moo tax nga def ko. parce que tey. Euh, nga bàyyi ba ñu ne la euh, li des ci say ay fan pour pour nga def passation de service bëriwul. nga yëkkati kii nga dégg côté bële ñee yokk nañu ay salaire mm-hmm. kii yëkkati na ay oto maye kii fexe na ba passeport diplomatique mu indi ci benn débat boo xam ne dafay dafay indi pour pour créer polémique la. Mm-hmm. léegi yow nga créer loolu yow ba pare gàddu sa avion dem nga ne toog nga Maroc pensant que yow li nga fi bàyyi dina indi problème ci biir réew mi. il mm-hmm. faudra que njiitu réew mi am fulla ak fayda ba li mu war a def ci loolu mu def ko si. parce que tey mënoo toog ba moment nga bëgg ma imposer. mais yow man ma teg sama ma fal samay nit. moo xam ambassadeur la moo xam ministre la moo xam keneen ak keneen ma am samay diplomate ci biir réew mi yoo xam ne man si sama mission dama leen di jox ay passeport diplomatique yow ex président nga bëgg ma imposer yow say nit yi nga xam ne démb ak bërki démb yaa doon liggéey ak ñoom ne ma bon yow say nit yi liggéey ak yow dañuy am passeport diplomatique mais man sama nit yi tam ñi nga xam ne nii dañ doon liggéey ak man dañuy continuer di am passeport diplomatique alors que nekk amuñu di am fullaak fayda gu mat sëkk déjà comme ni ñu ko defee ci passeport diplomatique yi mhm. lépp loo xam ne nag peut-être alal boppam lu mu maye loolu c'est son problème mhm. quant à euh, yëkkati ay prime jox ay nit loolu c'est mais lépp loo xam ne alalu Sénégal la ñu jox ko koo xamante ne nii waru ko am ñu récupérer ko mhm. léegi nag loolu boo ko defee dina indi coow wala du indi coow li ëpp solo mooy ñu ñu topp yoon et Sénégalais yi nag wax dëgg yàlla ils sont assez mûrs pour mun comprendre ne lii kat tegu na si yoon wala lii tegul li nga xam ne mooy loi koy wax ñu si ba moom moo ciy gis seen bopp rawatina li nga xam nag moo di parti bi di Pastef pour permettre leen nu mën a dugg encore ci li nga xam nag moo di ci làngum politique bi mais daanaka ñoom ñoo ko créé seen biir ñoo ko voté est-ce nekkul ab récompense ci ñoom le problème du Sénégal xam nga lan la mhm. mooy c'est-à-dire on a un peuple qui souffre mais à chaque fois ñun on pense pas à ce peuple là mhm. tout le temps privilège yu ñi jiite peuple bi moom la Euh, bërëb ba nga xam ne fa la ñuy nekk nan la ñuy defar ba nan la ñuy def ba gën ko defar ba mu gën a yànj euh, naka la ñuy def ba gën leen met ci conditions yu baax defal leen ay carburant yokkal leen jox leen ay prime alors que xaalis boobu yëpp ñu def ci ay ministres ci ay députés c'est des gens yoo xam ne c'est-à-dire situation bu baax am nañ ko ba pare xaalis ba nga xam ne ni peut-être mënoon na servir ñi nga xam ne ñoom ñooy les plus démunis moom la ñuy jël defaat ko ci ñoo xamante ne mais macha allah ils ont de bons salaires. pourtant moment boobu bëri ay ndaw yoo xam ne jotuñu seen salaire. c'est ça problème lu ñu tey jii euh, ñu ngi am problème pour chaque fin de mois jot li nga xam ne nag moo di seen salaire. mais loolu mooy paradoxe bi ñu ngi neexal ay député ci seen. loolu mooy paradoxe bi cest amoon. Mhm. gis euh, euh, nguur mooy déjà ñoom ci seen biir. dañuy bàyyi fale askan wi mais ñoom ci seen bopp seen i privilège bopp moo tax nga daan dégg ñuy wax ne dañuy wàññi dépense de l'État parce que da ngay xool Sénégal. budget bu xool boo ko génnee li si ëpp dépense de l'état nga koy def jox ko ay nit ñuy wëdd ci séminaire. Uh-huh. yu ñàkk fayda yoo xam ne jëriñul Sénégal dara. Uh-huh. et il faudra que mu am rupture à ce niveau là parce que xaalisu Sénégal c'est-à-dire maanaam ni état di doxee dafa bëri ay caaxaan yoo xam ne dañ ko cay yokk. Uh-huh. et loolu ça coûte énormément d'argent au Sénégal ci loo xam ne amul benn njëriñ. Mhm. je donne un exemple un ministre boo xam ne dafay xëy di déplacé wu jar na dajale dix oto wala lu ko ëpp. Mhm. wala jar na dajale cinq oto mais un ministre naka mu xëy dugg si otoom dem fi mu war a dem. Mhm. la la moo tax ñu ni war a yàq carburant bu bëri si ministre dafa war a déplacé wu jóge këram. am fu mu dem fekk nit ñi si circulation bi euh, ñu bloqué leen tardé leen c'est-à-dire il pratique yoo xam ne il faut ñu arrêté ko. c'est-à-dire uh-huh. il faut que ces la là ñun sénégalais yëpp ñu xam ne euh, c'est des c'est des serviteurs euh, de de de des citoyens sénégalais. Uh-huh. et que ñu am taxawaay boobu noonu. c'est-à-dire li niñ leen di niñ leen di niñ leen di mettre si yenn si yenn privilège yu ëpp yi. Mhm. da ngay toog ci moment boo xam ne dëkk bi sa santé dara doxu fi. Mhm. mais président priorité wam mooy na dem jënd ci avion boo xam ne boo doon xool dëkk yu développé yi sax seen président yi amuñu. avion yu mel noonu. Mhm. loolu dafay wane ne ñoom dañoo privilégié seen ay propre confort. ñoom nañu am oto yu bëri. ñoom nañu am kër yu bëri ñoom nañu am xaalis bu bëri par contre as askan bi moom mooy continuer euh, di souffrir et il faut que ñu ñu changer doxalin boobu et je pense que loolu euh, am nañ ci yaakaar ak le président Bassirou Diomaye Faye euh, franchement man mënuma imaginer ni président Diomaye dina am yenn xeetu doxalin yooyu non loolu moom loolu moom <laughs> mënuma ko imaginer en tout cas rupture boobu kii di Guy Marius Sagna keroog mu koy junj di xam xamle rek ni quinzième législature bi bi ñëw moom à la kulli haal rupture rek nañ que yenn yi moom ak ensuite euh, suukaru koor cent mille francs bi <laughs> daanaka Guy Marius Sagna aussi euh, bokkoon na ci li mu doon dénoncé alors moom moo ci les échos boobu. Mhm. Euh, nañu dese di ba tey ndax démb procès amoon na fële ca New Jersey nekk fële ci états mhm. ki nga xam ne moo di Serigne Sayer Fall moom mënu waxoon moo bokkoon suñu lakk bus bi fii nii ca Yaraax moom nag ginnaaw ba procès boobu jeexee li nga xam ne nag moo di waa les États-Unis réclament l'extradition du présumé l'incendie du bus de Yaraax mhm. maanaam ñoom nag lu ñu daal di sàkku rek mooy dellusiwaat ko fii ci réew po Sénégal daanaka même bu fa bu ñëwaatee sax ak mu des fa moom moo yem ndax euh, incendie bi mhm. bokk na ci loo xam ni lii di loi amnistie bi effacé na ko oui Euh, incendie <laughs> yaraax moom defe naa ne bokk na ci yi nga xam ne war nañ koo tijji lijjantiwaat ko. parce que ah, vraiment ko cest à loolu moom comme film quoi man man dama hmm. jàppoon ne gars yi dañ doon tourner film sax parce que ni mu demee moo tax euh, peut-être moment boobu loolu la bëggoon créer. Hmm. psychose boobu la ñu bëggoon créer ci ci biir bopp nit yi gëmloo leen ne euh, voilà actuellement biir dëkk bi dafa dafa dafa jaxasoo. Hmm. nit yi dañu rey ay nit mais yow yow yow attentat boo xamante ne nii man ba léegi mënuma laa wax kii moo bokk ci attentat bi wala ñu ne la diw moom moo euh, nekkoon ci oto bi wala diw moom moo fekkee mbir mi nettali ko. d'ailleurs am na ñun si jàppoon. Ah, mais mais c'est-à-dire loolu moo loolu moo ko waral. parce que uh-huh. mais on aura l'occasion bu fekkee ne attentat dafa amoon mais am nañ opportunité pour leeral loolu yëpp. Uh-huh. sénégalais yi xam lan moo xewoon euh, ci loolu ñoom ñuy woowee attentat. Uh-huh. nañu waxante dëgg c'est si la dëkk bi attentat amu fi. attaque terroriste attaque terroriste mënuñu léegi imagine ana ces gens là yi nga xam ne ñoom lañ jàpp woon ñoom lañ doon woowee terroriste dans ce pays ana ñu ñu ngi si biir dëkk bi. ñoo jiite réew mi d'ailleurs. c'est-à-dire actuellement les terroristes yi nga xam ne ñoom ñoo doon taal dëkk bi ñoom ñoo jiite dëkk bi. Uh-huh. Euh, ñeneen ña nga xam ne ñoo nekkoon terroristes yi ñu tëj leen ci biir prison yi ñu ngi ci biir mbedd mi. Uh-huh. actuellement ñu dox ci biir dëkk bi tranquillement uh-huh. il faut qu'on soit sérieux quoi. absolument euh, tey yor nguur nit di opposé jarul nga koy tuumaal yooyu yëpp. jël ay nit bu def leen fi ay terroristes jël ay nit def leen fi ay forces spéciales. ay góor ak ay jigéen nga jël leen di teg ay tuuma yu diis ci seen kaw ci loo xam ne tegul fenn. e aujourd'hui je pense que loolu moom Sénégalais yëpp comprendre nañ ne ay caaxaan la woon tegul woon uh-huh. nii euh, ñoom la ñu tuumaaloon naka nañu waxante dëgg si laal est-ce que Sénégal. Uh-huh. toll ay nit man d'accord naa nga ne taal lañ bus ma ne la am na nit ñu ko sañ a def ci réew mi. mais sénégalais bu fekk ay nit ñoo xam ne ñu ngi dox seen i soxla tranquillement nekk si bus di dem. nga ñëw fekk nit ña boole la ne ak bus ba taal. li ñu waxante dëgg kan mooy kan mooy attentat ci biir réew mi ak kan lay attentat mm-hmm. faut qu'on soit sérieux defoon nañu ko fi avec le cas euh, du gars bi jóge woon Euh, Ziguinchor di jënd si xar à Dakar ñu jàpp ko nee nañ mhm. moom moo doon euh, ñëw pour c'est un c'est un c'est un xaw ma rebelle xaw ma terroriste Ousmane Kabiline Diatta Kabiline Diatta ñëw jël dossier bi garaawal ko def si conférence de presse mais que des mensonges yoo xam ne teguwut fenn lan la ci jubloo préparé tabaski si je me trompe pas voilà <laughs> nii la woon presque un an déjà dem fekk ko muy jënd xar nga jël ko jël affaire bi dramatiser ko def ko comme film mu jël ko titré <laughs> et puis cette presse là bi nga xam ne ñoo yàgg a fenn di jàppale euh, li li <laughs> doxalin yi nga xam ne ni moom la gars yi nekkee woon mhm. mais xëy suba jël waa ji taf ko ne le terroriste léegi lii di inciter nit ñi di leen gëmloo que ces la là c'est des terroristes alors que loolu yëpp ay mensonge la yoo xam ne hmm. amu fi mais yow naka nga mën a loolu soo ko defee mooy saaga nga tey jii ñu nekk ci biir euh, ñu yore sécurité hmm. parce que yaa ngi wax ne waa ji dafa yore ay armes wala dafa yore loo xam ne dañ koy tere hmm. mu mën a jógee Ziguinchor ba ñëw ba Dakar ba biir Ndakaaru nga ne ah, fi nga ko jàppee après ñu ne noo gisoon nañ ko dañ ko doon topp ay caaxaani neen la lenn lañ ci jublu woon mooy dañ doon amal une répression répression boo koy amal boo bëggee mu yomb la mooy yow ki ngay réprimer da ngay fexe ba gëmloo ñëpp ne kii c'est un ennemi qu'il su ko hmm. defee yow li ngay def nit ñi dañ la koy accepter et c'était comme ça Ousmane Sonko il fallait le traiter de tous les noms il fallait que ñu gëmloo nit ñi ne que kii c'est un danger public qu'il faut abattre. Uh-huh. parce que tey ji bëgg nga ko éliminer te bëgg nga boo koy éliminer nit ñi ànd ak yow si li nga koy def. malheureusement aussi pour am preuve. c'est ça uh-huh. def moo tax lan lañ fi tuumaaloon nit ñi déjà charge yi nekkoon si Ousmane Sonko moom lañ tegaat ci kaw. Euh, Bassirou Diomaye Faye uh-huh. Bassirou Diomaye Faye dafa doon la sûreté de l'État xam naa na mission parce que finalement <laughs> vraiment ñu <laughs> <laughs> mu nekk vraiment ay xibaar yu doy waar yu nga xam ni les ko moom la